amul benn sëriñ boo xam ne rek jaral nga ma déplacé wu ma jël essence def ko sama oto taal ko amul benn sëriñ bu ma ko jaral ci àdduna bi kenn rek laa koy defal muy sëñ Abdou Karim sak àjjuma ma dem Fallou Awa Bousso mi jax réew waaye yaay mi toog fii mu dëkk nii xamuñu ko baax buñ ko bëggoon xam dëgg ba mu jugee dimaas taal oto ñëw jàkkarloog Waly Seck yéeg ci kaw Waly jàkkarloog moom di way di lox mu xam ne kii maj kii mu jàkkarloog di way di nutu neen kase caal ba maam Cheikh Ibrahima Fadi sa jeey Fadi pendak lam sukaabe ngoone jeey dammel fa njoogu dammel yor yor yi ndaal timis ci wiiri wiiri ak tundur géwal bëgg saamori xaadim jaar na ba jàll te newul wu yaay yooyu waaye a sëriñ bu fa jàll du tële jox naa la ko ci yaay Fall sëñ Bambaay ñaar si kanam loo ko sëlëm sëlëm du dañ kaay ma la ñaar baa xam nga ni bari bokkul ci réew mi Faal woo la yaay Faal dama am soxla seetal ma. barki Sëriñ balaa moo coupé. Hmm. balaa kirit bi jeex. nga wax ay bal. balaa moo nelaw ba yeew bu yeewoo bal yaa ngi koy wax mu gis ko jàkkaarloog moom. keneen sa ndey mu doon joxe kenn du la yëm. ñaari maalaam ci réew mi waaye benn nga ci muy maala mag maala gën doo ko dégg ci réew mi déedéet. samba mi nga baax bari jom. démb damaa woote woon ndogu li waaye samba fa jiitu. balaa si internet yëpp di ñëw Samba fa jiitu. borom Médine TV. su ma xuusee dem jàkkaarloo kor Cheikh Béthio Thioune mi soxna Ayda mu baax mu bari jom fa fekk Samba mu toog nga baax bari jom am fulla am personnalité nangoo liggéey. yaay faal nag lan moo waral ma toog ba heure bii muy jëm jiitoo jaaykatu jiw bu baax mi toog. doom ju teral ndayam yàlla nee na foo ne wërsëg fekk la fa xale yaa ngi Dakar wërsëg di leen fa fekk waaye xale yaa ngi ci dëkk yi xale yaa ngi mbuur wërsëg di leen fa fek yaa nga mbuur toog wërsëg di la fa fekk nga baax bari joom ma ne ma toog léegi ma ne la man de maa ngi nii di ñibbi parce que damaa war a jénn nga ne ma Babacar bul demagum toogal xaar ma joxal ma lii yaay faal ma ne la damay toog joxe ko ba pare soog a dem jaaykatu diw bu baax bu bari jom nee naa la jaay diw bari bokkul ci réew mi mané la jambal jambal ba mu neex loo jamb xalé yi ah boy ben nga am ci yaay faal. samba nangul samba nangul. ben jas fi ci yaay faal. ñaari ñunni ñent ñunni la 40 fukki junni ci xale bu teral ndayam xale bi nga xam ne tuxoo fayoo tukki woo yàgg kenn jëliwu la bu la kenn piis nañ la xool ci kaw sa jur ji rafet na ba noppi te dara du ko dindi ñaari maalaam ci réew waaye benn nga ci dégg muy maanaam ak yaay faal nag lii nga def nii yàlla nga ko yàgg di def ci barki Sëriñ Bamba te yàlla bu benn xale tooge sa place yàlla bu benn seetkat toogee sa palaas ñay naan may ma cinq minutes ma xoolal la ak balaa aku coupé nga gis bokul ni dalay fay legi balaa wébiru dug nga seetal ko wax ko ay bal mu deg waaye nag xam nga la motax bis bi neex sama nijaay ji taxaw nga bax bari jom ko le mbay nga ni jaay Arma jaay omari takko ma jaab dalay daaro mbar ma jorok matar taar Serigne Baba si Mbacke rek dara maa arlu maam Kumba Caam bu kumaak benn paate benn xar yàlla bu mag bi ci digg réew mi say vaisselle baax say lekk set say xale set mën a sol yow rek a ko mën ci digg réew mi yal na leen yàlla defal jàmm nag yéen ñi fi teew ñëpp yal na leen yàlla defal jàmm ci barki alxuraanu karim ni ngeen ko fekkee wee gi yàlla ngeen ko fekkee déwén. jërëjëf Babacar yal na la yàlla fay loolu ku la xam xam la ci wax lu baax ku la xam xam la ci mën sa nit ku la xam xam la ci sagal sa nit te ku xool sa digganteeg la buuta bi tubaarikàlla macha allah nga xam ne kóllëre rek moo ko lan ndax yow am nga fu la joo xamante ne nii fu la nit woowul doo fa dem. ku xamul sa valeur li jëm ci woo ko ndax nag ku xamul looy jar yow nga xam li ngay jar te yàlla may la fulla ak fayda may la personnel ci dëkk bi ngay def sa liggéey ni mu waree man naw la ma fonk la ñuy daje guddi di daje bëccëg da bëgg sama mag ji El Hadj Alassane Mbaye ba mu jeex tàkk ba nga koy fekk jaxaay keroog muy jëflanteeg yow maa nga taxaw ba nga koy fekk këram muy waaj anniversaire ak sa groupe maa nga taxaw nga bëgg ko loolu taxaw ci télé di ko wax lu baax ndeyam a ngi ne ci ginnaaw toog liggéeyu ndey day feeñ ci media ay mbokki ndeyam a ngi nii jógee ba Jurbel yaayam nii rek lay def toog toogaay bu rafet toog bu ngeen doomam tàqalewu ko kenn ba ko ñëpp yaay Fall baax na lool waaye buñ koy wax lu baax dëgg ay ndeyam moo tax ak ay baayam ndax foog gim leen foog ak jàpp gim leen jàpp day ubbi boutique ndeyam ñëw toog ne ma sàmba ma ne ko naan mu ne ma yaay fal lekkul dara bàyyi mi ngi dimbali baayam guddi ak bëccëg dimba dimbali guddi ak bëccëg li mu am mi ngi koy bokk ñun askan weeg bokk beeg ñëpp a koy sant. kon booy wër nit ku tekki boo yegg ci yaay fal mii da ngay freiné ndax na tekki mooy ku sa ndey gërëm ku sa bàyyi. alal teraanga dong la yàlla xool ku ko neex mu jox ko jox na ko nit jox ko dof jox ko ku bon jox ko ku soxor jox ko ku iñaan waaye tekki mooy ku sa ndey gërëm sa bàyyi gërëm bu la neexee taxawal ne tekki nga te ay fan mi daa tekki ndey bu bàyyi ko gërëm mu baax loolu bëri jom nangoo liggéey laa grande voyante bu ngeen yónnee ci moom nag moom it dina am ay kaddu cant yoo xam te ne ni mi koy defaat ci yéen mi ngay joxee mu ngi naan ay waay kii lu muy def nii ay waay lii bëri na tegu ma ko ko moom bu sañoon mooy jox kenn kenn du ko jox ndax jom la bëri bu sañoon mooy jox ñëpp kenn du ko jox. waaye nag booy lebal lebalal as gor booy lebal lebalal ku bëri yërmande booy lebal lebalal sa nawle te nawle daa foor yaay Fall mii ku engagé moom muy dugg leen teeg yow di jëm leen teeg jëm leen teeg soo dawul ko daw boo delluwul ginnaaw du dellu ginnaaw kon Babacar jërëjëf loolu peut-être ji nga fi andi. jox nu gaaw parfum bii nga xamante ne yaa koy jàmb te Babacar nee na jii du tey nee na yàgg nga koo def fi jëf neen gën a rafetee nga koy dagg di ko ko jox di ko ko yónnee nee teraanga bu nekk nga koy defal defal nga ko teraanga guddi defal nga ko teraanga bëccëg tey nag da ngaa dolli rek waaye def nga démb la nga daan def nee na mi ngi lay sant ku ne xam na ne mbuur ay kilomètre la waaye li Babacar wax rek a ci ne Kumba Njaay doo complexé ñëpp jàpp nañ ne boutique yaa nga Dakar boutique yaa nga Pikine nga jël sa boutique yamale ko ba toog fa di liggéey xam nga ne yàllaa nekk fépp te fépp ay doomu aadama rek fa dëkk foo ne yàlla fekk la fa yàlla nga àggaleeg sa sago yaay Fall mi ngi lay sant mu ngi lay gërëm nee na teraanga ji na déplacement bi dafa doyoon nee na boo ko woowee téléphone yaa ngi jàmm seen moom yaa ngi yaay Fall daal nee na teraanga rek nga sëkk ak moom Kumba Njaay loo fi buute yàlla sa jàmm yàgg su booba léegi toog fi toog ak nekk ki fi nekk rek moo lay wan ne da bëgg yaay Fall bëgg bu bu yàgg ndax ku ne xam na ne fi ñu toll nii njaay bi daa dox amu leen jot buti nga yor nag faa fii ay heure a ñëw toog fee lool toogaat fi ba heure bii pour sa teraanga bu la neexoon jox ko wala ko ci mbuus biisu ko dem sa yoon waaye da koo jox cër xam ne ci bis nga bokk nga ñëw jox ko ba mot sëkk kon yaay Fall mi ngi lay sant di la gërëm ngañ ngañ yaay Fall mi ngi lay sant nee lu mu xewle nee na xam nga yaay Fall du milliardaire du da ngay jël lépp defar ba mu baax. nee na li nga ko defal nii. nee na nit fay na la ay millions nga wàcc bis ñëw fii ci bisam moom mii. nee na bu la santul tey du kor ndax bi mu jàppee bi si ba léegi yàgg moom yéen a ngi déggante gudd bëccëg yéen loo fanaandoo yaa ngi xalaat lu baax ak lu mën a bëgg lay doomu aadama yi nga ñëw fii bokk moom kon kan ngañ nee na mi ngi lay sant di la gërëm. nee na ak équipe bi ngay àndal yëpp mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di sant nee na yaayam. nee na lim lay njëkk a santee di la gërëm yaay Fall mooy gërëm yaayam. ku màgg fay la. nee na bi mu màggee ba bàyyi ko mu ñëw Dakar kii. nee na nga am ci moom confiance doyloo ko boo amul ci kenn. na mënut a wax ci yaayam xolam day tooy. yaay booy lii rek doy na ndam. nee na wóolu gi nga ko wóolu ak bàyyi gi nga ko bàyyee mu déparé Diourbel ut si dakaar ci xale bu jigéen mu ñëw fi tey yàlla suñu borom may ko li mu koy may defal ko li mu koy defal mu doon li mu doon tey nee na bu la sant lu gërëm ku ci am sa ndey wàcc ko nag gis ko am ndeyam téye ko koy jënde sa yaay sa yaay ko gën koy jënde sa baay sa baay ko gën nit da ngay fonk say waajur nit da ngay fonk say waajur doy loo leen kenn du xeeb say waajur xam nga ne xeeboon sa ndey boo xeeboon sa ndey heure boo amee bis doole ko fang ñi ñi ñi ñëpp toog bëri na ci ñuy am bis di nëbb seen yaay waaye yow loolu dalu la jaañ loolu dalu la gudd fan rek ak wér gi yaram la ñu lay ñaanal suñ borom bàyyi la ak askan bi bàyyi la ak njaboot gi yàlla suñu borom musal la ci pexem noonu wax ji nag dañu koy dagg di ko arrêté ndax yaay faal xol bi fees na waaye Babacar yaay faal sant na la gërëm na la sant na Kumba Njaay mbay gaa yi fi nekk njënde Samba gaa yi yéen ñëpp yaay faal mi ngi leen di sant leen gërëm waa Jurbel yi départ ànd ak yaayu yaay faal yaay faal seen doom di nee na ngeen yokk ñaan yi ñu leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf merci beaucoup à vous tous